di ziar ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne tey dañuy stade Amadou Barry pour soutenir suñu candidat soutenir ki nga amuñu kenn ku dul moom ki nga suñu muy suñu Cheikh Serigne tegal ñu Aline Mamadou Dia muy candidat boo xamante ne boo ci 19 candidats yi am yëpp yi mu am ak fi mu jaar moom rek ma fa jaar. muy koo xamante ne daa neex a àndal yaram tegginam jàngam xam-xamam relation internationale vraiment mu boo xamante ne Sénégal yëpp seetlu nañ ne kenn la ci candidat yi moo tax depuis trois heures. ñu ngi fii stade Amadou Barry di waajal loo xamante ne vraiment dañoo bëgg Sénégal yëpp gis seen bopp di waajal loo xam ne Sénégal yëpp dañuy xam ne candidat bi jar a jàppale mooy Aliou Mamadou Dia bi jar a jàppale mooy gis nañ Moustapha Sy toj xam ne Sénégal yëpp nañ man maa ngi jógee ba dëkk bi ñuy wax Ndangalma commune de Ndangalma ñaan yàlla xam naa ne incha allah Serigne Moustapha moo tax ma dugg ma dugg ci politique ginnaaw bi mu tànnee Aliou Mamadou Dia moo tax ma dugg ci politique dikk fas yéene incha allahu rabi doon di ñëw incha allah de Nangalma fas yéene naa candidat représenté fii au niveau de Nangalma man maay président des la jeune 3 de Gat kon bëgg naa la commune de Nangalma ci élection législative yi di ñëw incha allah bu di lancer toute la population de Mangalma nga xam ne dañuy ñëw taxaw euh, derrière derrière Buur fii le parti de l'unité du boo xamante ne ku ci dugg day gis sa bopp ku ci dugg li nga xam ne lii du yeneen parti moo tax tey ñu taw fii nga xamante ne sax Amadou Bari fas yéene sargal suñu candidat fas yéene jàppale suñu candidat fas yéene campagne nag continuer campagne fii ba zéro la incha allah. képp koo xamante ne bëgg nga développement Sénégal képp koo xamante ne bëgg nga Sénégal jëm ci kanam képp koo xamante ne bëgg nga ndaw ñi am liggéey képp koo xam ne bëgg nga bi nga xam ne béykat lañu ay sàmmkat lañu voté leen Aliou Mamadou Dia bu ko defee Sénégal développement ku ko bëgg nga mën a Aliou Mamadou Dia kon loolu la ñu am loo xamante ne moom lañ ko doon wax loolu mooy suñu présence tey tey nga xamante ne mooy stade Amadou Barry ñu fas yéene def visite de clôture jàppale Aliou Mamadou Dia pour les élections vraiment di kenn fii 24 prochain incha allah jërë ngeen jëf maa leen di ziar di sant. commune de Diender plus précisément village de Diender donc euh, élection bi niñ ko waajalee sénégalais yëpp gis nañ ko. donc ñu indi un candidat boo xam ne c'est le meilleur profil mu nekk Aline du jaar donc lu tax ñu ne c'est le meilleur profil donc moom homme de développement la boo xam ne il a travaillé pendant plus de vingt ans ci PNUD le programme des Nations Unies pour le développement donc réew yi nekkoon ci guute yëpp ci Afrique ak lii ko wër moom la fa waa ONU doon yónni mu di leen génnee ci guute googu kon nag bu jotee tey mu ñëw Sénégal pour génnee ko ci guute gi. donc dañuy wax le meilleur profil donc mu parti boo le meilleur parti le parti le plus structuré le plus discipliné le plus rigoureux donc euh, mu nekk deuxième raison pour que sénégalais war koo tànn de ko defee euh, militant pur yi nag ñoom ñëpp retiré nañ seen carte yi ñu ci ëpp fas yéene dimanche ak jàmm incha allah ñu dem mottali ji li nga xam depuis plus de deux mois. parce que boo xoolee yeneen candidats yi fukki fan lañu kan lañ campagne mais ñu plus de deux mois ñu ngi ci terrain bi dem nañu ci biir kër yi ci biir néeg yi wax ak ñëpp sénégalais yi rassuré nañ ñu donc dinañu gagné élection yi incha allah au premier tour bu dul premier tour aussi dinañ jëm deuxième tour te dinañ gagné incha allah donc euh, lenn rek moo ci des moom mooy sécurisation du vote te loolu aussi PUR daf na ci taxawaay. préparé nous préparons les et mandataires. Nous l'information. Nous savons le code électoral. Nous savons que nous avons le jour Nous avons des députés. Nous avons des résultats au euh, niveau département. Pour que nous avons des Nous avons le 25, au soir du 25. Nous avons une victoire. Nous avons des palais. jël réew mi jëlee ko fi mu nekk yóbbu ko feneen Sénégal yëpp développé incha allahu rabbi bu ko defee loolu rek la ñu amoon lu ñuy wax salaamaaleykum wa rahmatullah